Papa Thione Seck bi mu fi jógee léegi ay at ñaari atam matagul tey gis nga euh, tiis bi dalaat ci kawam lan nga koy dégg. waaw ja euh, suñu yaay jooju moom dafa koy xam nga moom yàlla dafa dogal li ñu koy dénk lépp fekk na mu mu nekk ci moom. <laughs> man ki nekk gis laay wax ndax yàlla dafa dogal dañoo dañoo xaw a miinante trop euh, xam lu bari ci moom ci travers ak. borom këram sama papa kii ne dama koy wax massa rek parce que kii ne dafa ànd ak coon ci ci carrière bu métti ko mhm. c'est ne moom faaw ñu dund lu métti parce que yàlla moo tracé yoonam noonu quoi nekk coon sekk rek ci ay affaire la ci diggante moom moo tax ki ne yu mel nii dina ko dina ko dina ko mise parce que euh, coono àdduna bu ne yàlla boole na ko coon sekk ñoom ñaar ñu ànd ko mhm. ba tey ñu am lii moo tax njabootu coom suñu borom daal moo xam li muy tracé moo xam ndogalam mais kii ne jàmbaar la te yàlla boole na ko borom kër goo xam ne jàmbaar la ñu fi ñu traversé moo te sóoroon na yii yëpp ndax boo ñu ne la moom yi jëndoon na bàmmeelam ñeenti at ci ginnaaw waajuram bu jigéen jënd na bàmmeelam Thione Ballago Seck mi ngi fii tëdd kon ñoom sóor nañ loolu ñu koy masawu nag waaw man nag yàlla dafa dogal ki nit dina bari nag bu ma ko waxee di Thione génne ko gëj a tëdd mën ko ma woon bu seetaanee bi ma toog ak moom jàkkaaroo mu ne ngay wax ak Thione ba pare téléphone noonu mu waxee moom noonu noonu la demee boobu laa boobu laa gëj a gis ki te loolu nag. mënu ma ci dara. kër googu moom. lii noonu la en une minute lan ngay fàttaliku lu la gën a ci li nga dund ak Fatou ne moom mbir la ko am. moo bàyyam ñoo dend. li tax rek ma bëgg muy rafetal lépp. tey waxante dëgg ci ànd ci ngor ak dignité mooy lii ci partant la ñu ñëpp ay dem incha allah yàlla na yéex ñaanal moom yi xel dal na ci moom ndax ku fonkoon waajuram la fonkoon jëkkëram la ku bëgg yonent bi la te it ku yar ay doomam la te bis bi ñu génn xel dal na ci ndax bisu alxames ak bisu àjjuma bis la boo xam ne boo ci wuyjee suñu borom malaaka yi dinañ la Amana duñ la sax tànn da lay ndax bisu dañuy dem ci kon bis la boo xam ne bis xel dal na ci moom mu doon nag rakk joo xam ne ak doon joo xam ne ku joxe woon cër la joxe respect loolu la xam ci moom cër ak respect la joxe lii rek tax ñu xel amul solo xam ni àdduna la fële moom suñu borom moo ko te ki ñu ñu bind kon nan rafetal lépp di ñaanal bayam bi mu fekki yàlla na ko teeru Thione Seck Seexul bi mu gëm serigne touba ànd ak moom ko ñu ko ci loxo yonent bi yonent bi ko ci loxo sunu borom mu jéggal ko ay bakaram te oyofal suuf ci kawam te ñi fi nek njabotam bi yalla ar leen sàmm len ak ak ak baax la woon discret ah serviable macha allah quoi comme ni ñëpp wax. yan relation ngeen di ci gën a waaw waaw comme yaa ma gën a xam rek saa yu fi mu toll nii boobu ngi dégg rek xool yi dafa fees saa yu moom mënuñu sant yàlla rek sant yàlla bu baax. ñu nekk papa papa Thione yàgguñ dara. sant yàlla sant sant yàlla sant yàlla sant yàlla sant yàlla. yéen waa Ramdaan normalement noonu koy noonu koy. borom bu wér di sant yàlla li ñu xaar si loolu. boo ko fëggoon ne ma disque ak sa sa sa mag mu bàyyi fa yéen waroon daal moom nan la leen jàppee woon nan la leen nan la leen jàppee woon ci liggéey waaw féeri nañu fépp ndax waaye moom fu xool carrière am xam ne seen TV dafa dafa ci am rôle important moom si ko wax seen TV wax moom am doorte moom lañ waale ko seen TV dafa dafa génn lu am solo nga xam ne moo nekkoon teg gis te li ci gën a grave mooy bi mu faatoo tey da ko ñu bëri xam lay wax sénégalais yi. ah sénégalais tey di leen ñaanal jàmm rek tey sàkku ñu ko ñu ñaanal ñu ko. jaajëf jaajëf. maa ngi sori naan la woo ñu dégg naa jaana jaana. waaw Fall su leen seen wàll maa ngi leen di siyaar bu wér a wér a wér ah waaw di nuyu sénégalais rek di tey moom. wax ji du bëri sax ndax bisu naqar moo wàññeeku ñu ñëwoon doon ko denc di ko ñaanal suñu borom teeli noflaayam yàlla xaari ko àjjana yërëm ko mook mboolem jullit bu ñu fa fekk ci barke borom Tuubaa doole Cheikh waaw comme ni ko ñëpp yëgee rek dañoo yeewu rek xool suñu téléphone yi rek yëg ko am naqaru xol am tristesse macha allah ndax ci bi jógee moom nit ku baaxoon la macha allah kenn xamul ko dara jàpp nañ njàmburam wuy ci suñu borom def lu dul di ko ñaanal yàlla saa borom yërëm ko xare ko àjjana waaw man ak moom amuñu woon rela amuñ amoon amuñu woon relation parce que minante wuñu woon suma ma jumul musuma ko gis mais euh, xamante nañu woon par intermédiaire sama benn grand bu ñu naan Papis Niang ma koy euh, jaale waale xaritam la woon événement boobu mu musa am soxla ci D-Média papis laa koy wax mu wax ko moomi moomi ni ko ah Tarba sunu frère la ñoo boo ko papa lépp lu mu fi bëgg rek da koy yomb ñu defaral ma ko comme ni ma ko bëggee mhm. vraiment miinuma ko bu baax waaye xamoon naa ne ko jàpp ñàmburam la ndax am euh, groupe de presse bu toll ni D-Média nekk doomu Papa Thione nekk magu Wally Seck te kenn mosulaa dégg ci dara dara dara dara dara dara kooku suturaal na boppam ni mu suturaale suturaale woon boppam ci àdduna yàlla na ko sunu borom suturaale al yomal xiyaam bi mu jëm dee di noflaayam saa borom xaare ko a mboolem jullit bu mu fa fekk ci barke Seydina Muhammad jaajëf